وآل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد جنا بن على يالا جولي صلى الله عليه وآله وسلم نيجي باتاي صحيح الامام البخاري تما الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه موي تير بوب مانام بو صحيح مو صحيح امام البخاري ولا بوك الجامع الصحيح نيجي وان تي كتاب الغسل جاهل نكو تسنو جتاي بي ويسو لله الحمد والمنة مداد وحنا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض مان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تتربور يا الله الرحمن بي أجفز دي لجير من دي الرحيم أي أجفز من دي أجيات دير من دي من كتاب بنتير بغني الحيض وقول الله تعالى alkitaabun téere alxaydu muy mbërëg mbërëg wa qawlullahi ak waxu buur yàlla bi taala aji kawa ji wa yasaluunaka an ilmaxiidi qul huwa ada wa yasaluunaka te danañu la laaj an ilmaxiidi ci li nga xam ne moom moo aju ci wàllu mbërëk qul waxal ne huwa moom mbërëg adan lu ñuy sibla maanaam loo xamante ne lu lu lu lu ñuy sibla lu ñuy seexlu la ndeki noonu maanaam sobe la ilaa qawlihi ba fa muy waxee ne wa yuhibbul mutatahhirina te dafa sopp ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi saxoo dàq ci di làpp wala boog ñuy jiggi dayo ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñooy ñooy làpp maanaam aaya borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne wa yasalunaka an il mahidi qul huwa ada faatasilu nisaa fi l mahidi xatta tatahurna fa ida tatahar wala wala taqrabuhunna xatta xatta yatharna فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويسألونك danañu la laaj عن المحيض ci li nga xam ne moom moo aju ci wàllu mbërëg xul waxal ne mbërëg moom huwa moom mbërëg adan sobe la faatazilu te na ngeen gàdd na ngeen beru an nisaa a jigéen ñi xatta yatuhurna wala taqrabuhunna te bu leen leen jege xatta nga te yatuhurna ñu daal di laab fa ida tatahharna saa yoo xamante ne dem nañ nag ba laabal seen jëmm ji fa aatuhunna na ngeen leen dikke min xaysu ca fa nga xamante ne amarakum digal na leen ko allahu buur yàlla inna allaha li wér bool mooy buur yàlla yuhibbu dafa sopp ak tawaabiina ñi nga xam ne dañoo sax dàq ci tuub wa yuhibbu te dañoo sopp te tamit al mutatahhiriina ñi nga xamante ne ñoom ñooy sax dàq ci di laab euh, kon aaya boobu dañ ciy jàngee maanaam ne li nga xamante ne moom moo tax imam al buxaari rahimahullahu taala indi ko mu ne kon eh, moom mooy ni aaya boobu moom mooy leeral mboolem atte yi nga xamante ne ñoom ñooy atte mbërëg eh, al aaya boobu noonu borom bi subhaanahu maanaam maanaam imam al buxaari laata ñuy ñëw dafa ne kitaabu kitaabu kitaabu xaydi maanaam day leeral ne al xaydu wa qawli wa ni kon kitaabul ab téere ngi nii téere bi nag li muy wax mooy al xaydu mooy mbërëg ak lii nga xam moom mooy aaya bii loolu la manam atte bi li nga xamne mom la téré bi di wax al alxaydu nak borom xam-xam yi rahmatullah alayhi manam ñi nga xamante ñom ñoy wa waa luga luga lu waa luga ñoom li nga xamante ne moom lañ koy firé mom moy as-sayalan manam mom moy ak ak ak sotteeku wala bok ak dotteeku loolu moom mooy xay xaada wala bok mom moy al alxaydu comme bu nga xamante bu nane naan xaa shajara wala boog xaadal wadi maanaam go xur wi mi ngi euh, dotteeku mi ngi sotteeku maanaam mooy euh, bu tawee bu ci ndox mi dalee ni muy wàccee noonu di sotteeku di tuuru di daw wala boog xaadati shajara garab gi day maanaam mi ngi sotteeku maanaam mooy boo ko dóoree masalan nga gis meen gi di génn di sotteeku loolu moom la ñuy wax xaadatu xaadatu shajara euh, amma ci li nga xamante ne nag moom mooy ci wàllu fiqh maanaam ci istilaax kooku borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ci indi ay at ay wax yu baree baree bare waaye li nga xamante ne moom lañ ko mën a tënke daal moom mooy ne daw gi nga xamante ne moom la daw moom la deret ji di daw tey juge ci deret ci ci ci ruxum gi waaw mooy xurujul dami minal wala boog ilqaau dami dañ koy wax wala boog nufuudu dami maanaam benn bu ci nekk baat yu la boo xam ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ koy faral di jëfandikoo waaye mënef na ko waxee noonu rek ngir tënk mooy xuruju dami minar rahim maanaam euh, euh, euh, bilaa illatin wala sigar maanaam moom mooy ne daw gi nga xamante ne moom la roxom gi maanaam mooy butitu njurukaay li wolof naan butitu njurukaay mooy appareil boobu yépp nga xamante ne moom mooy tax nit ki jigéen ji di mën a jur doom maanaam deret ji nag bu walee jóge foofu wàcc génn te génn gi muy génn feebar taxut ni ki nekk xale bu ndaw loolu taxut loolu bu boobaa loolu lañuy tuddee euh, mbërëb loolu nag ni ki noonu euh, bu dee nag doom moom moo tax bu boobaa loolu nifaas lañ koy tuddee maanaam moom mooy gësin waaye su dul loolu rek loolu moom la ñuy tuddee mbërëb kon loolu euh, moom mooy alxaydu Euh, li nga xamante ne nag moom mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy wax ne comme li al-Jaahiz wax rahimahullah maanaam jigéen moom mooy maanaam nit moom mooy gis mbërëg nit euh, ak euh, arnab moom mooy lëg lëg ak ak dabaxu moom mooy mbëtt ak xifaas moom mooy njugub ñeenti ñii ñoom ñooy gis mbërëg maanaam kon ñooñu ñooy gis mbërëg ñeneen ñu dul ñii duñu gis mbërëg kon loolu moom la borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ne la ñooñu ñooy gis mbërëg am na ñi nga xamante ne eh, yeneen animaux yi comme niñ ko gisee même bu dee ay mammifères lañ du ñu gis mbërëg eh, loolu beneen bi ci des moom mooy ne mbërëg yi dafa am mbërëg maanaam ay xeet la dafa am ki nga xamante ne moom mooy al mahib maanaam moom mooy al haid dañuy wax ni jigéen ñi ñeenti xeet lañ dafa am ki nga xam ne moom mooy taahir mooy ki yi am ki nga xamante ne moom mooy ma maanaam mooy xaaib moom mooy kiy gis mbërëg ki nga xamante ne moom mooy am nufasa moom mooy jigéen ji nga xamante ne dafay gis gësil ak ki nga xam ne moom la ñuy tuddee al mustahaaba moom mooy jigéen ji nga xamante ne euh, dafa euh, dafa dafa dafay gis jorngel maanaam moom mooy deret yoo xamante ne day wal di tuuru te du mbërëg loolu moom la boroom xam-xam yi di euh, maanaam teqale ne ñooñu moom moo am am maa xeetu deret yi nga xamante ne ñoom ñoo am kon moom mooy deret bii nga xam ne moom la ñu xam mooy bii daggee ci yaramu nit ki beneen bi ci des moom mooy dam moo boo tax deret boobu moom la ñuy wax damul istixaada la tamit bu génnewee ci fii mbërëb bi génnee loolu moom la ñuy tuddee damul istixaada beneen bi ci des moom mooy damul xaydi bi ci des mooy deretu mbërëg kon ñaar ñetteel bi moom mooy deretu gësin mooy damul nifaas bi ci des moom mooy damu fasaadin wa illa waaye damu fasaadin wa illa mooy deret gu yàqu ba pare nekk deretu feebar loolu boroom xam-xam yépp dëppoo wuñ ci firi ko noonu ndax ñi nga xamante ne ñoom ñooy maalikee yi ak shafi'i rahmatullah alayhim ñoom ñu am expression boobu damu fasaadin dañ koy wax damu fasaadin kese léeg-léeg maalikee yi rahmatullah ñoom ñooy faral di wax illa maanaam ñu ne damu fasaadin wa illa maanaam deret goo xamante ne deret gu yàqu la niki noonu deretu feebar la masalan tey bu fekkente ne jigéen ji dafa gis mbërëg euh, lu ëpp bés yëm ko war a gis am geneen deret goo xamante ne dafa jokkoo ak deret jooja loolu la ñuy wax damul istixaada ci ñoom amma bu fekkente ne dafa takkalikoo ak deret jooja loolu la ñuy tuddee damu fasaad maanaam deret goo xam te ne deret gu yàqu la loolu insha allahu taala daan ci gën a ñëw ci ay xeeti teqantal insha allah amma li nga xamante ne moom mooy beneen mbir bi nga xam ne moom moo mat a xam moom mooy ne dafa am jigéen ñi ay façon lañ tamit maanaam dafa am ñi nga xam ne ñooy gis mbërëg ñoom ñëpp tamit ay façon lañ dafa am ki ñuy wax mubtadaa maanaam mooy ki nga xamante ne day tàmbalee gis mbërëg kooku c'est la première fois mu gis ci addunaam kooku mooy gone gi nga xamante ne dafa dem ba am lu ëpp juróom-ñeenti at ci li nga xam ne moom mooy lu ci li borom xam-xam yi wax rahmatullahi alayhim te insha allahu taala mooy li ci gën a sax maanaam mooy bu demee ba mat juróom-ñeenti at amma xanafiye rahmatullah alayhim ñoom ci juróom-ñaari at lañ ko àpp ne moom mooy euh, li gën a tuuti ci li jigéen ji war a mën a gis mbërëg maanaam maanaam tey fi mu toll parce que at yan at comme que jigéen ji du judd rek di gis mbërëg te danañ xam ne day jékki-jékki di gis mbërëg loolu moom moo indi ñu war a laaj ana kañ moom mooy kañ la war a tàmbali mbërëg ba nga xamante ne deret du mu gis balaa booba kenn doot ko jàppee mbërëg loolu nag li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci juróom at lañ ko kal amma ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha u xanafiyee rahmatullah alayhim ñoom ñoo ko kal ci juróom-ñaari at amma fuqaha u maalikiyee rahmatullah alayhim ñoom dañ koo kal ci juróom ci fukki at ak ñett waaye dañ naan juróom-ñeenti at ba fukki at ak ñett képp lépp lu ci jigéen ji gis loolu ñoom faaw ñu laaj mag ji ndax ne deret ji mbërëg la waaw wala déet maanaam jigéen ñi nga xam ne mag lañ wala boog ñu laaj médecin yi ba pare bu fekkente ne leer na ni lii mbërëg la bu boobaa ci la ñuy doog a attee ci nañ ah d'accord kon nag lii moom mbërëg la maanaam ñoom noonu lañ ko jàppee waaye bu dee fukki at ak ñett la mu daal di gis deret yi nga xam ne moom war nañoo mën a jàpp ne mbërëg moom bu boobaa laaj dootu ci amati sikki sàkka dootu ci amati dañuy jàpp ne loolu deretu mbërëg la ci kaw loolu kon gis nañu lan moom mooy at bi nga xamante ne moom mooy euh, aqallu xay xayda maanaam bal mooy at bi gën a néew ci de ci ñu mën a gis mbërëg ci jigéen ñi waaye tamit comme dañuy gis jigéen ñi ñu jekki-jekki rek arrêté dootuñu gisati mbërëg ñu naan ko ménopause nag gars yi day ñoom la ñuy tuddee aayisa maanaam ndax mu ngi jóge ci al iyaasu maanaam jëf ji maanaam jëmmi mbir mi la ñuy tuddee al iyaas maanaam al al maratul aayisa moom la ñuy tuddee ne jigéen la doo xamante ne dem na ba dootu gisati mbërëg loolu mu ngi toll ci li ëpp ci boroom xam-xam yi li ñuy wax rahmatullah alayhim mooy juróom fukki at ak juróom loolu moom mooy mazhabu ñi nga xamante ne ñoom ñooy shafii ak xanaabila rahmatullah alayhim amma xanafi ñoom ci juróom fukki at lañ ko aj maanaam cinquante ans amma maliki rahmatullah ah, astaghfirullah shafii utaluñ ko bërëb maanaam juróom fukki at ak juróom shafii utaluñ ko ko maanaam shafii dañ ni mën naa dem ba abadan amul fu mu taamu amul fu mu yem amma xanafi ah, xanaa ñoo ko utal ci juróom fukki at ak juróom donte mën nañ koo wàcce ba ci juróom fukki at ci xanafiya yi rahmatullah am amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom ñoo ko yóbbu ba soixante-dix ans maanaam juróom-ñaar fukki at waaye nag dañ naan bu xësee ba weesu juróom fukki at wala juróom fukki at ak juróom bu boobaa dañuy commencé di laaj nag médecin yi ndax li muy gis loolu mbërëg la waaw wala déet waaye bu weesoo juróom-ñaar fukki at moom ak lu mu mën a toll loolu dootul mbërëg loolu moom mooy beneen mbir bi nga xam ne war nañ koo xam maanaam yii ñuy gis nii li tax ñu war koo gis mooy day tax ba yii ci des buñ ci yegsee mu yomb maanaam nga xamante ne du jar ñuy préciser waat yenn mbir yu bëri bëri day tax mu yomb loolu moom mooy beneen masala bi beneen masala bi nga xamante ne tamit comme euh, moom mooy kon jigéen ñi ñeent lañ maanaam ñu ñëwaat foofu mooy ki nga xamante ne mubtada ala moom mooy ki nga xamante ne dafa dafa tàmbale ñaareel bi ci des keneen ki ci des moom mooy mootaada mooy ki nga xamante ne dafa am ay aada maanaam moom day baaxoo di gis mbërëg ki mooy koo xamante ne am na am na am na euh, habitude bu muy gisee mbërëg loolu tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ni ñuy définir loolu dafa wuute xanaa bi lay rahmatullah alayhim ñoom ñoo jàpp ne faw mu nekk ñetti yoon maanaam mu gis mu mu gis ko ñetti yoon loolu insha allahu taala amaan na dinañ ci gën a ñëwaat mais dañuy leeral noonu rek biir mi noonu amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafi euh, yi ak shafi yi ak maaliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne loolu amul maanaam euh, benn bi day daal di doy donte am na teqantal seen biir bu fekkente ne xanafi la rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne mbërëg boo xamante ne jur maanaam nit ki dafa gis mbërëg am set ba pare laab ba pare ñoom ña mu gis ni lii wér na nii la nii la amee te amul benn dysfonctionnement loolu la ñuy jàppee ni loolu moom mooy aadam am amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi Maliki ak Shafi rahmatullahi alayhim ñoom ñu ko jàppee rek moom mooy buñ ko gisee benn buñ ko gisee benn yoon euh, su ñëwaatee loolu euh, maanaam loolu lay jàppee aadam waaye loolu daan ñëw insha allahu taala ci li tax ñu koy leeral yépp mais ñu jàppee ko nii insha allah ñu ci yegsee dana gën a leer beneen bi ci des moom mooy ne fukk euh, kon mubtada am mooy kiy tàmbali moo taada mooy ki am aada mooy ki am habitude nga xamante ne day yàgg di gis dara Euh, donte dëgg-dëgg euh, xaqiiqatan aada day sax faw ci ñett parce que sinon du ñu xam ndax lii habitude la waaw wala déet parce que bu fekkente ne benn yoon rek la gis munuñu ne lii habitude la aada la voilà donte euh, dinañ ñëw ci teqantal boobu insha allah taala beneen bi ci des moom mooy keneen ki moom mooy mu mayi sax mooy ki nga xamante ne moom day ràññee moom amul aada naka jekk du gis du moom du ra du du gis da maanaam naka jekk moom amul aada bu mu tàmm di gisee ay mbërëgam xam nga li ëpp nag ci jigéen ñi juróom-benn fan la ñuy gis wala juróom-ñaar waaye ki nga xam ne mooy mu may yi bi moom moom moom amul temps bu durée bu mu koy gis moom li muy gis rek moom mooy naka lay xàmmewee mbërëg bu boobaa nag laaj bi nga xam ne moom mooy jañ boppam moom mooy mbërëg kon nan lañ koy xàmmewee ak leneen lu dul mbërëg bu boobaa juróom benn mbir la ñuy xàmmee mbërëg wëlif lu dul mbërëg bu njëkk bi moom mooy deret bi moom mooy euh, couleur bi maanaam melaw yi nga xamante ne moom la deret ji mel deretu mbërëg comme ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da wax ne aswadun yaarif maanaam dafa nekk loo xamante ne wala boog aswadun yoraf dafay nekk lu ñuul maanaam deretu mbërëg mooy gën a jege ñuul waaye loolu tamit daañu ci ñëwaat léegi incha allahu taala ñaata xeetu deret ñoom ñoo am te ñu leen di wax ne lii deretu mbërëg la ñaata xeet rek loolu dañ ci ñëwaat léegi insha allahu taala waaye deretu mbërëg dafay euh, euh, da da euh, kon mooy deret maanaam deret ji maanaam couleur bi loolu dañ koy xàmmeewee ndax lii mbërëg la wala maanaam comme tey par exemple su fekkente ne jigéen ji day doo ko gis mbërëg dem gis fukki fan yoo xamante ne lépp dafa ñuul mu teg ci euh, mu teg ci yeneen fukki fan yoo xamante ne lépp dafa xonk bu boobaa day jàpp ne mbërëg bi moom mooy fukki fan yi fukki fan yu njëkk yi mooy mbërëg ngir ne de noonu la koy xàmmeewee loolu moom mooy xàmmee ni ñuy mën a xàmmeewee ne lii mooy mbërëg ak lii du mbërëg euh, loolu benn la ngir ne lan ngir dafa dépassé li ëpp ci mbërëg waaye loolu daan ci ñëwaat insha allahu taala euh, ñaareel bi ci des moom mooy xet gi ndax deretu mbërëg dafa am xet goo xamante ne bokkut ak xetu geneen deret bi xam ngeen geneen deret gi boo ko xoolee xet gi tax ko prononcé wu alors que deretu mbërëg xet gi dafa ràññeeku loolu mooy beneen bi ñaareel ñetteel bi ci des ah mooy métit gi maanaam deretu mbërëg buy ñëw day métti niki noonu deret judul deretu mbërëg métit amu ci mooy alam al alam al lawlu al riixu al alam wala ñu koy al taallum tamit beneen bi ci des moom moom mooy euh, ndax tal na walla talul ndax tal na wala talul voilà mooy tal moom mooy euh, viscosité la viscosité voilà ndax naka la viscosité bi mel bu dee deretu mbërëg moom mooy gën a moom mooy gën a tal amma euh, deretu beneen bu dul deretu mbërëg kooku ak du du tal noonu loolu mooy beneen bi ci des euh, mooy ñaata ñeent euh, juróomeel bi moom mooy bëriwaay bi ak tuutiwaay bi ndax deretu wërëg du bëri comme deret bi nga xamante ne moom moo daggee ci yaram deret gi daggee ci yaram day wal lu bari maanaam moo tax deretu euh, jorngeel tamit day mën a wal lu bari waaye deretu mbërëg moom dafay nekk deret joo xamante ne day toq par tuuti lay waddal loolu tamit beneen mbir la bu ñu mën a xàmmee lan mooy deret lan mooy deretu mbërëg ci li ñuy gis ak lan moo ci dul deret mbërëg beneen bi ci des moom mooy te boobu tamit beneen la bu am solo moom mooy euh, gaaw a wow gi maanaam deretu mbërëg daanaka du wow euh, kon nga gis ne beneen bi ci des moom bu ñu toog tuuti muy ko coagulé wu. voilà comme ni ko ñëpp xamee nit ki bu dagg daggee bu ñu toogee tuuti mu coagulé wu deretu mbërëg nag demewut noonu. loolu mooy juróom benn mbir yi nga xamante ne soo ko jàppee saa yu deret ñëwee mbir mi lënt xamuloo ban la ci nga mën a jël benn ci juróom benn yi nga mën koo ràññeewee ni bii moom deretu mbërëg la bi ci des du deretu mbërëg maanaam tey nit ki bu fekkente ne dafa am comme ñu jëlaat même exemple bi fukki fan yoo xamante ne da doon metti waaye fukki fan yi ci des metti wut bu boobaa day xam ni kon fukki fan yi doon metti yooyu ñooy mbërëg yi duñu mbërëg moo tax mu al mu may yi ki nga xamante ne moom day ràññee moom noonu lay xàmmeewee kon wax nañ mubtadaa wax nañ mootaada wax nañ mumayyiza am na keneen ki nga xamante ne moom la ñuy tuddee mus euh, euh, euh, moom mu mus mus mustahaada maanaam mustahaada mooy ki nga xamante ne dafay gis jorngel maanaam moom li muy gis ci mbërëg dafa gën a bëri maanaam loolu d'ailleurs bu loolu amee amul maanaam mooy mustahaada istihaada mooy lan mooy ma gis mbërëg boo xamante ne ma gis deret yoo xam ne xam naa ne lii moom lépp du mbërëg loolu mooy istixaada bu loolu nag mooy tekkantal diggante li nga xamante ne moom la doon wax naan euh, moom lañ la wax léegi ne la Cha ak Shafi rahmatullah alayhi ñoom ñoo am lu ñu tuddee damu fasaadin waaye la voilà beneen bi ci des nag moom mooy al mooy ak am na keneen mooy alxaamil kooku tam dañ ko fàtte woon euh, am na ki nga xamante ne. moy tahir moy ki lap moy ki dara jotut moom gisul mbërëg dara jotu ko koku manam ci groupe bële manam tahir bi bi ñu ki ñu tahir wax nufasa hein euh mustahada ak keneen ki nga xamantene mom moy mooy alxaamil ki ëmb koku ndax day gis mbërëg waw wala de loolu tamit dan ci ñëw inshallah waye fuqaha o yi nga xamantene ñoo japp ne mom day dina gis mbërëg moy fuqaha Shafi'i yi Maliki ak Shafi'i rahmatullah ñom ñoo japp ne ki nga xamantene mom moy ki ëmb mom dana gis mbërëg donte li nga xamantene moy li wër inshallah moy ne ki ëmb mom du gis mbërëg parce que li tax du gis mbërëg moy moy jëmmi li tax muy am doom parce que su doon ne da fay gis mbërëg du am doom système bi d'ailleurs mbërëg bi loolu moy manam li muy déclenché woo loolu moy waral muy am doom kon bu boobaa limi indi motax Euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu waxoon sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne ko téye ko ba pare nga def ki mu ki mu naroon a wàcc mu ne ko ba mu ba keroog muy ëmb ba keroog muy muy muy muy muy jur donc wala ba muy muy muy set voilà maanaam bu ñu bu leeree ne dafa ëmb kon bu boobaa bu juree doom lay daal di doon ba indam ci lay jeexee wala bu setee ci boobaa ci ngay doog a am droit wàcc ko te bu boobaa maanaam tey. Euh, exemple bi ñu maa ngi fàttaliku bi ñu joxe woon bi ñu nekkee ci Umdatul Ahkam bi mooy tey boo demee ci intérim di di ne damay wut liggéey ñu ne la étudiant la nga ne waaw ñu ne la ah yow di kon ñu ne la waaw demal ba weekend wala nga am vacance maanaam li muy tekki mooy euh, moment yi nga dul jàng loolu lay tekki maanaam tekkiwul ne euh, kon ci ngay xame ne ma lii tamit noonu la demee maanaam euh, nit ki am mbërëg maanaam nit ki ëmb moom du ëmb rek waaye nag ci bu ñu nattalee nag léegi ne fuqahaa maaliki rahmatullaahi ak masalan ñoom li ñuy wax ci wàllu mbërëg ñoom dañ ne euh, su demee ba am maanaam ba bu dee ci ñaari weer la gis mbërëg ba balaañ ba ñetti weer yi loolu li muy gis kooku kii rek lañ koy jàppee euh, maanaam comme yeneen mbërëg yi lay doon maanaam mënut a weesu ak fan yi nga xam ne moom la daan gis mbërëg waaye su fekkente ne dafa dem ba juróom benn weer maanaam muy continuer di gis bu boobaa dañ koy nattee ci vingt jours mooy nekk li ëpp li muy gis mbërëg su dee fekkente ne nag dafa continuer di gis mbërëg maanaam diggante sept si septième mois bi maanaam à partir de septième mois bi ba keroog muy jur bu boobaa mën naa gis mbërëg ba mu am euh, ba trent jours maanaam loolu kon ñoom noonu lañ ko nattalee voilà waaye yeneen fuqahaa yu rahmatullahi alayhim ñoom dàqu ñu leen jigéen du toll foofu mën naa gis deret sof ko ñoom dañoo jàpp ne deret jooju deretu istixaada la maanaam gis du du mbërëg moo tax du du du dara yi nga xam te ne moom la mbërëg di tere euh, mbërëg nag kon euh, ni comme niñ ko gisee ni maanaam day gis ne eh, am na ay mbir yu wër-wërloo ci moom beneen bi ci des moom mooy ñu war a xàmmee tamit ne euh, dafa am lu ñuy tuddee aqallul xayd ak aktharul xayd li gën a néew ci mbërëg lan la li gën a néew ci mbërëg borom xam-xam yi tamit dañ ciy wute rahmatullah alayhim ah, ñi nga xam ne ñoom ñooy xanafiyee rahmatullah alayhim loolu li daan ci gën a ñëwaat ci teqantal lii nii dañu ubbi rek bu ko defee ñu jàpp ko benn yoon su ko defee après mbir bi gën a mën a leer suñ ci yegsee ah, ñoom xanafiyee rahmatullah alayhim dañoo jàpp ne li gën a néew ci mbërëg mooy ñetti fan ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp li gën a néew ci mbërëb mooy fan ak genn wa ak ak ak guddee maanaam guddi ak bëccëgam maanaam guddi ak bëccëg muy 24 heures Hanafi yi ñoom 72 lañ jàpp ñee jàpp 24 heures amma Maliki yi rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne ñun dañu wut teqantal ñun dañ naan su fekkente ne euh, ci wàllu ibaadaat yi la maanaam jaamu yàlla yi julli woor euh, Euh, jàng alquran et cetera maam yooyu nga xamante ne ay ibadat la ñun dañuy jàpp ne benn fan la maanaam euh, astafurlah amul amul amul amul amul amul amul aqalul xayd amul maanaam bu fekkente ne dafa am lu tuuti lu génnee ci jigéen ji donte ci benn minute la génnee sax ñun loolu dañ koy daal di jàppee ni ah bis boobu gis na bëri cest di que bis boobu su ko tombee mu nekk bisu weeru koor bis boobu du ko du continuer du ko woor day dog koor mm-hmm. te moment boobu du julli bu dee masalan day fekk waxtu julli ñëw ak yu mel noonu maanaam lu mu tuuti tuuti ñun dañ koy daal di jàppee mbërëg te bu boobaa day daal dem sangu ji farata bu bëggee julli waxtu bi bu waxtu wi génnagul day dem sangu ji farata bu arrêté kon loolu ñoom la ñu tuddee ne aqalul xayda moo tax amul bërëb waaye loolu ci ibaadaat yi la am naa ci aadaat yi bis la ak genn wàll aadaat mooy lan mooy masalan jigéen ji nga xamante ne dañuy mën a wax nag léegi masalan ndax euh, dañ koy fase waaw wala déet ndax ma def na ko fase waa wala déet wala boog eddaam ndax mat na waa wala déet ak yu mel noonu loolu moom faw ñu nattale ko ci bis ak gennool parce que lu tax parce que looloo gën a wóor fële lee moo gën a wóor fii lii moo gën a wóor maanaam ñu nattale mbir mi noonu mu ñoom noonu lañ ko jàppee te loolu tamit gis-gis la boo xamante ne amaan na euh, mooy li gën euh, sàmm incha Euh, beneen bi ci des moom mooy ci li ñu war a xam moom mooy euh, aktharul xay bi lan mooy li gën a bëri ci li ñuy gis mbërëg maanaam tey xam ngeen ni mbërëg mënuñoo toog rek jigéen ñi di gis mbërëg di dem di dem di dem rek ah di gis mbërëg di dem rek ñu naan waaw moom day day moom day di gis mbërëg rek moom da du set ñu ñu bàyyi noonu mm-hmm. loolu xam nañ ne mënta ne lu tax mënta ne ngir ne. nit ki borom subhanahu wa ta'ala da ko bind ngir mu jamo donc su fekkente ne dafa nek fi di gis mbeureuk di gis mbeureuk di gis mbeureuk rek rek rek rek rek euh, dañuy dañuy daal di mën a nattale ne loolu mën ta nek kon parce que la taxone yalla bind ko kon du ca nek moy mu ko jamo c'est-à-dire te jamo yalla bi gën mak moy julli c'est-à-dire que kon julli bobu mënuñu ko ko exonérer éternellement loolu ci ngay xamé do lay julli te ci loolu ci ngay gisee borom xam-xam yi ci loolu la ñu nattee rahmatullahi alayhim ak sarul xayr li gën a bëri ci mbërëg moo tax borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim natt ko subhanallah léegi lañ ngay xalaat nag ci koo xamante ne wér na dara jotu ko tout ça mu ne moom du julli yaa subhanallah euh, donc kon li gën a euh, bëri ci euh, ci ci mbërëg loolu tax borom xam-xam moo tax li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ koo nattee ci fukki fan ak juróom lu tax parce que dañu weer wi fanweeri fan la mun ko ëpp kon genn wàllu dund gi mënoo mënoo toog lu ëpp genn wàllu dund gi te doo julli imaginez jigéen joo xam ne la bu doon bis mbaa day gis 16 jour par exemple par par par mois ce qui veut dire kon li ëpp ci dund gi day toog te du gis mbaa rek lay tekki du dëgg euh, masala boobu daan ci ñëwaat insha allahu taala am na ñi nga xam ne ñoom ñooy xanaa xanaa bi lay rahmatullahi alayhi ñoom dañoo jàpp ne Euh, li gën a tuuti ci mbërëg fukki fan la ak ñett maanaam maam li gën a bëri plutôt ci mbërëg fukki fan la ak ñett euh, astaghfirullah astaghfirullah mooy li gën a tuuti ci diggan ci gën a bëri ci waaw li gën a tuuti ci diggante mooy aqal la tuhri voilà loolu laa bëggoon wax euh, maanaam ñaari masala yi dañoo jege wàttoo ñu ñu jëlaat ko masala bu njëkk bi moom mooy li gën a bari ci ñuy gis bërëg kooku xanaf yi maa maaliki yooyu ak xanaa bi lay raxmatullah ñoo ci bokk àtte mooy li gën a bëri fukki fan la ak juróom li nga xam ne mooy li gën a néew li gën a li xanafi eh, yooyu raxmatullah moom fukki fan la dañ laa ko mën a def loolu moo tudd aqallu tuhri maanaam eh, weer wi dafa jot astu commencé gis mbërëg bi ñu demee mu daal di toog Eh, gis ko juróomi fan wala boog mu gis ko juróom benn fan mu daal di taxaw biñu defee juróom benn fan mu taxaw ñaata fan la ñuy toog ne ah moom day segam toog na ba gisatul par exemple ñu toog 17 jours après mu gisaat beneen bërëb booba dañ naan ah d' accord ah d' accord kon kat astu li mu gis nii beneen mbërëg la bu bees bu bokkut ak weer wee bu toogee 17 jours lu tax parce que ëpp na 15 jours yi yaa ngi dégg li nga xamante ne moom mooy rahmatullah ñoom dañ ne déedéet 13 jours la loolu ci ñëw insha allah ci masala boobu daañu ciy gën a ñëwaat dégg nga euh, mu des li ñuy tuddee ak dawr mooy cycle loolu faw jigéen ci xam ko bu dee moot aada la maanaam bu dee kuy gis aada la ku am benn aada la faw mu xam li nga xamante ne moom mooy cycle loolu mooy lan cycle moom mooy boo boolee li nga xamante ne moom mooy ak la ak ak mbërëg laa ñaar yooyu soo leen boolee lu mu doon loolu moo tudd ak dawoo maanaam euh, bu fekkente ne dafay gis ñetti fan mbërëg yaa ngi dégg laab fukki fan ak juróom benn muy 16 jours kon bu boobaa dañ naan moom cycle am 19 jours la mu daal di xàmmee ne ah 19 jours lay gis bëri man am naa masala yi nga xam ne ñoom ñooy masala istixaada maanaam jorngel gi loolu daañu ci ñëw insha allahu taala ci gën koo leeral léegi euh, loolu moom mooy li nga xam ne xëy na mooy le minimum bi nga xam ne waroon nañ koo gis ci njàlbéen bi pour mën a euh, dugg ci téere kitaabul xay imaam al buxaari euh, dafa indi bunt bi ginnaaw bunt bi nga xamante ne moom mooy kitaabul wudu ak kitaabul xusl yépp bokk ci kitaabul tahaara mu jiital ko ci kitaabu tayammum ngir ne moom kitaabul xayd mbërëg dafa jege cangaay ngir ne yii waral maanaam sangaay sangalu farata mbërëb day waral sangaayal farata ci la bokk beneen bi ci des mooy yi ñuy tere ki am janaaba mooy jëmm yi ñuy tere ki am mbërëb ci lu jege maanaam ci ay quelques différence près ci ay wuute yu am ci biir borom xam-xam yi maanaam ñu gis ne kon ki amee euh, euh, euh, kon moo tax mu indi ko foofu ba pare loolu day leeral ne.

maanaam ay mën a tabax kër gi nga xamante ne moom mooy kitaabul xay bi maanaam ne serait-ce que loolu da nga gis ñu baree bari dañ ko réer te li gën a yéeme mooy ñi nga xam ne ñoom la concerné te mooy jigéen ñi ñooñu ñoo ko gën a réeree ji ñoo gën a réeree ngir ne loolu moom moo loolu te loolu daan ci ñëw bu ñu ñëw ci bu ñuy ñëw ci aaya bi léegi insha allah taala mooy aaya bi nga xam ne noonu la tuddee kitaabu na alxaydu wa qawluhu taala wa yasalunaka anil mahid qul huwa azan ila wa yuhibbul mutatahhirin loolu dinañ ci gis insha allahu taala ne li gën a néew li gën a li gën a tumuranke ay yu bari yu tumuranke yoo xamante ne jigéen ñi ñoom ci seen jëmi bopp ñoom ñoo ko réer te mooy ñoom la mbir mi gën a concerné moo tax kitaabul xayd téere la boo xamante ne ñeen borom xam-xam yi rahmatullah dañ koy beral téere comme fii la nga gis kitaabul xayd imam muslim rahmatullah ci saxiix bi ak kitaabul xayd et cetera. mais da ngay gis ñoo xamante ne dañ koy dugal ci ci kitaabu taxaara rek benn waaye da ngay gis léeg-léeg ñenn ñi tudd abwaabul musta ay ay kii abwaabu yoo xamante ne danga fil mustahaada comme imam at-Tirmidhi rahimahullah nga xam ne ci mustahaada lay wax mm-hmm. du wax ci alxaydu lu tax parce que parce que euh, mustahaada mooy kii gis jorgel ñaare kii gis mbërëg kooku problème souvent du am problème lu dul problème quelque masala yoo xamante ne da koo réere kese kooku souvent foofu foofu yooyu lay am mooy masalan nag euh, dafa waroon a sangu far euh, dafa waroon a teel a sangu farata sanguwul farata mm-hmm. wala yu mel noonu yooyu nga xamante ne maanaam vraiment ñàkk a jàng dëgg ñàkk xam ñàkk gëstu maanaam ñàkk yittewoo dëgg dëgg dëgg xeeti masala yooyu mooy tax nga li ci jum kooku yooyu moo koy faral di la mais kii am problème mooy ki nga xam ne moom mustahaada la wala boog muy gis ay mbërëg yu dagg-daggee parfois mbërëg yi mën nay dagg-daggee loolu tamit incha allah taala dañ ko leeral ci bu ñuy wax ci affaire aada yeeg bis nangam ak yooyu mm. yëpp daañu ko leeral incha allah taala mais ku mel noonu kooku moom day am problème mais sinon ki gi ki am jorgeel kooku moo ëpp problème te ki gis jorgeel am na maanaam ñoom buñ koy tënk dañ naan mustaxaada dafa am beneen type boo xamante ne ci biir mustaxaada la bokk mais kooku la ñuy wax mu al muxayyira dañ koy wax muxayyira al mutaxayyira dañ koy wax dalla wala al mudilla ñaar ñett ñeenti tur yooyu yëpp dañ ko ko wax ki nga xam ne dafa gërëm wala day gëlëmaate maanaam day day jommalaate day jommalaate dafa jommi ba pare day jommalaate parce que lu tax parce que borom xam-xam yi rahmatullah munuñu maanaam euh, dañu am problème pour définir lan lañ kii lan moom mooy ay mbiram ana naka lañ koy attee kii dafa joom ñoo jommal nanu kooku ñoom moo tax ñu naan ko almuhayyira almutahayyira ngir ne moom ci boppam daa joom ni Ah, keneen ki ci des moom mooy ab daal la moom ci boppam mooy ko sànku moom ndax moom ci boppam dafa mujj sànku ci ay ay ay deret yi muy gis xamatu ci al mudil la mooy kiy sànkaate lu tax parce que boroom xam-xam yi ci seen bopp dañoo am problème ñoomee ñoom seen boppa ah, dañu am problème mu mën bi xam ay attem moo tax masala la boo xamante ay mbir la yoo xamante ne lu néew a néew ci biir boroom xam-xam yi daf ciy néew ñoo xamante ne man nañu am capacité bu masala ci wàllu mbërëg ñëwee

ah day dëkk ak ay jigéen comme ni ko ñëpp ñun dañoo dëkk ak ay jigéen mais mën nañoo nekk suñu dund gi ba dund gi jeex te du mës a gis deretu mbërëg naka lay mel ah loolu daf ñuy dal loolu nag bu fekkente ne mbir mi noonu la demee loolu mooy indi du ñu mën a ñu bari duñu mën a xàmmee voilà beneen bi ci des parce que am na am na am na masala boo xam te ne indi indiwuñu ko waaye daañu ko indi incha allah mooy xeetu deret yi mais loolu daañ ci daañ ci ñëw allah buñ ci buñ ci yegsee ngir mu gën a leer waaye tey bu ñu xoolee euh, beneen bi ci des moom mooy le fait kon mooy bu njëkk bi mooy le fait que góor ñi ay imagination lañ ci am amuñu ci lu leer maanaam loo xam te ne dañ naan lii maa ko dund Euh, ñaareel bi ci des mooy le fait que euh, mbir yi kaa yi bëri te wute te mbir mi jigéen ju nekk na mu koy gaarale du bokk ak ñaare moroomam na mu koy gaarale mm-hmm. loolu tamit bokk na ci li ko compliqué ginnaaw ba nga xamante ne góor ñi ay imagination te seen lañ ci am maanaam loolu bu fekkente ne mbir mi noonu la deme loolu tax day compliqué loolu moom moo tax képp koo xamante ne borom subhaanahu wa taala xiirtal na la ba nga xam ko ba nga yittewoo ko ba nga jàpp ko ba nga takk bu boobaa da ngay daal di bokk ci ñi nga xamante ne borom subhaanahu wa taala ci kaw tànn leen que lu tax parce que tout simplement euh, bëri dafa bëri ay actes yoo xamante ne dañ cee aju comme ni nga xam ne noonu la ñu gisee incha allah actes yu julli da ci aju. actes yu woor actes yu woor da cee aju actes yu aju makka tawaaf kaaba ji yooyu yëpp daf cee aju umra ak yooyu yooyu def ci aju ak tey fase da cee aju ak tey sëy maanaam nit ki di jote ak soxnaam waaw wala déet ak naka ak kañ ak fan ak nan yooyu da ciy aju ak tey nit ki nga xamante dafa dafa set maanaam wala day simmeeku loolu da ciy aju ak tey ndax majeur nañ waaw wala déet ban atte lañ war a tëral ci nit ki bu fekkente dafa def lu lu lu lu luñ ko war a ay daan maanaam jigéen bi waaw wala déet atte yi euh, euh, euh, idda daf cee aju atte laal kaamil waaw wala déet jàng alxuraan waaw wala déet yooyu yëpp da cee aju maanaam boo xoolee nombre de atte yi nga xamante ne ñoo ci aju ni ñu baree ba pare nekk loo xamante ne dafa dafa dafa dafa da maanaam ci dundu nit ki lépp daf ci aju loolu moom moo tax xam ko maîtriser ko takk ko jàpp ko jàngale ko loolu day daal di nekk loo xamante ne ngëneel gu rëy rëy rëy da ci nekk beneen bi ci des moom mooy ne ñëpp ko war a xam rawatina jigéen ñi ndax lu tax góor jigéen ñi war koo xam mooy moo dalee na concerné mm-hmm. lu tax góor ñi war koo xam mooy ndax ñoom dañuy dund ak soxna yi te képp ku ne am nga devoir maanaam farata la ci yow loolu mooy xokmu bi atte mbërëg xam-xamu mbërëg lan mooy atte bi bu ñu la laaj xokmu bi maa xokmul xaydi xokmu elmul xaydi ma lan la atte xam-xam bi aju ci mbërëg lu mu doon dañ naan la fardu xaydi farata farata la ci képp koo xamante ne jigéen la mm-hmm. képp kuy jigéen dafa war ci yow mu nekk nag loo xamante ne beneen farata day tegu ci képp ku am soxna képp kuy boroom kër day nekk farata nga jàngal ko sa soxna walla nga wut ku ko ko jàngal loolu farata la te ak say doom say yu jigéen ak képp koo xam ne dafa nekk ci sa ronu kilifteef lay doon nga jàngal ko ko moom su fekkente ne xamu ko te yow mënoo ko ko jàngal te wutoo ko ko jàngal moom day nekk farata ci moom mu génn dem jàngi ci ko te yow bu la tere boo ko ko teree ne ko bul dem foofu di jàngi moom day war a bañ day bañ yow te amul droit tere ko boo ko teree am bàkkaar foofu bokk na ci yi nga xamante ne borom xam-xam yi rahmatullah dañ ci yaxal ne jigéen ji bu ko jëkkëram teree loolu day bañ mm-hmm. dem génn dem jàngi voilà ngir te ngir am solo gi nga xamante ne moom la ak xay ak lépp luy góorgóorlu nga xamante ne euh, moom mooy al muxayyira wala kooku euh, mbir mi ni mu nekkee ci ni mu jaxasoowee ci moom moo tax euh, ku mel ni moom ad-Daarimi rahimahullah bind ci tiiri bu am solo moom an-Nawawi rahimahullah Euh, euh, dajale woon na masala yu ëpp solo ci yooyu waaye daf ni xaw tuuti ma indi ko ci almajmua waaye nee na ma far ko bàyyi ngir lan ngir ngir bëri gi mu bëri mu ne ma yem rek ci yi nga xamante ne ñoom ñooy yi nga xam ne mënta ñàkk waaye euh, téere bu bu bu rëy la maanaam nga gis borom kooku mi rahmatullah buñ ciy wax da ngay gis ni ñu ngi wax ci sujet bu particulier maanaam bokkul ak buñ doon wax ci yeneen masala yi bu ñu wax ci yeneen i domaines yi da ngay gis euh, féex giñ ci àndal ak ni ñuy kiiwee mais bu ñu duggee ci domaine xaydu rek da ngay gis benn xeetu sérieux beneen bu bokkut ak maanaam ak it euh, voilà nga gis vraiment niñ ko doxi joxe yitte euh, nga gis ku mel ni imam ahmad waxoon nañ ko ci gàmmu gi rahmatullah alayhi nga xam te daf ni man toog naa makastu fil xaydi tis'a sinina xatta atqantuha toog naa ci di jàng mbërëg juróom-ñeenti yu at yoo xamante ne dama ko doon jàng ba mën ko ba maîtriser ko totalement xamante ne li ëpp euh, loolu moo tax yooyu yëpp dafa mat xel maanaam ci affaire mbërëg et que dafa laaj maanaam yitte am na euh, li nga xam ne